ku réere mbir day ka xam lu mu laaj leen mbiram ki mbir day laaji amal lu amul gumba yi njàccar laa ngi tee ngeen ni wedam man ku xamul laa ku xam xaw mawlayam ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaa lu ko dal bu ko xul falaayam nan jéema toppi yàlla toppi ndigalam te jéema daw saytaane xàmmee ndugalam te jéema roy roylu rijaalu laayi te jéema reyloo kulu jaani laay déglul ma wax la waral màggal ga nga ni Seex Bamba reyal demam ga keroog la Bamba tee ñu fab yanam ba wettali ko ba dem maa fab yanam baat wéttali ko yàlla ba dem maa yombaat ngir bëggaramu jamono yonen baab tuubaali man balaxa moo di yen baab yen banu yenoon xutbu yaag labdaal yab te attanun ko yaa ko fab raw gaayab yen banu yenoon xut bu yaag lab daal yaag te atte nuñ ko sëriñ tuuba yaa ko fab raw gaa yaag te ngëñ di wey te te ngëñ di wey te tawatul balaa yaag suuratul la am ci laa yaag sëriñ si naaqis lañu bàmbaay kaamil mbër suq lañoo sëriñ bàmbaay kaabal sëriñ si naaqis lañu bàmbaay kaamil mbër suq lañoo sëriñ bàmbaay kaabal man sàkk fi zaalika fal yu ومن يجرب بابي تقرب من زك في ذلك فليجرب ومن يجرب بابي تقرب الحمد لله ñuy sant fii Cheikh Bamba tey ngir moo taxaw julli woon fa Ndar bañu sañ ko borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba nu xool leen Sëriñ Tuuba da ngeen ko ñàkk mbaate nga laaj ña doon siñeel borom ndar yàlla du buur ngir bëgg a ko jar keroog lañ xëy di woote yay tambe ba des ki ci góor ñi moom du tambe keroog budul woon ak ki ci góor ñi li nga ya daj képp sëriñ Tuuba di baayu góor ñi keroog budul woon ak ki man ji góor ñi si nga ya daj képp sëriñ Tuuba di baayu góor ñi bisub keroog ku si ñam nga suukar ak lëf ci xaalis dal di daw dellu sa kër bisub keroog si ñaam nga suukar ak lëf xaalis dal daw dellu sa kër sa diina de so àndandoog sa ngorgaab ma dellu kër gaab nga naa si ña du tee man ma dellu kër gaab ku dem sa kër bëgg xam na ngay def si ña ci fii du yàq foofa sunu jëf te naan Tuuba yow yaa nu jaaxal defal ni ñu demal si ñe nu dem bul gàntal te naan Tuuba yow yaa nu jaaxal defal ni ñun demal si ñe nu dem bul gàntal fekkoon naraŋ ba xaadi may fukkeel baat waaye moo def li tax ñu dal leen bab daa jël lu ni maa ci sës laaj man maa waral ngeen di wisit gis ngeen daa jël lu ni maa ci sës laaj man maa waral ngeen di wisit gis ngeen kon bàyyi leen ñi ñëpp maay seenug jot maay koog du daw te dara dara du ko jot xaatal du fil baari jëwoon fa kongoob kenn du ko tollal ci waay nee ma gongoob xaatal du fil baari jëwoon fa kongoob kenn du ko tollanti waay nee leen ma gongob ku sàkkalum kem sëriñ Tuuba ci réew mi yow danga demul Gabon fa géej gaag réew ma ku sàkkalum kem sëriñ Tuuba ci réew mi yow danga demul Gabon fa géej gaag réew ma Ahmadu Bamba kabbar ca duus delluwaat ca gaal ga cey sëriñ Tuuba goree teeb ray ya diigal gaal gaal ga cey Tuuba goree teeb ray ya diigal gaal ga yow rekk a génn mi naa la diitoob sëriñ Tuuba yaa tax nu moom sun bopp tey bay feetu yow rekk a génn mi naa la diitu jëy sëriñ Tuuba yow yaa tax nu moom sun bopp tey bay feetu bi nga dellu see fu yaa nga fa sampe tey ñuy sant rekk ku ne xew ci sa diina tey ridal ilaahu alal xadim di ki yàlla may jërëjëf sëriñ tuubaam sa jëf na ko yàlla fay ridal ilaahu alal xadim di ki yàlla may jërëjëf sëriñ tuubaam sa jëf na ko yàlla fay Ahmadu Bamba, jërëjëf Xaadimu Rasuul, jërëjëf jërëjëf خالد رسول يا محمد محمد يا خالد رسول يا محمد محمد يا خالد رسول يا محمد محمد يا خالد رسول yàlla ma dara màgget laa ko man yàlla ngeen xëy di bees tàq rek ngir jënd yoon bi léegi doon ma yàlla bu fi kenn màgget Touba jërëjëf Bamba jërëjëf jërëjëf Bamba jërëjëf jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëfe Xaadimu Rasuul jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëñ bamba yow la nu jox sunu confiance jaajëfati xaadimu rasool am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ bamba Côte walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom non violence. bamba. la woote di jëf ne silence. sëñ bamba. moo tax am amul tendance. nañu sant Xaadimu Rasuul sag wàllu raw na ambulance bamba sag dégg raw na fréquence sëñ ma doonoon sa résidence surveillé cey xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi ne daan la offense sëñ bamba woon benn défense budul yoneen xaadim rasool gaa basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñépp toog di assistance ngir bëgg la xaadim rasool lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba océan bële ku ñu fa relance jagabaw nga xam ne doo xaadim rasool yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche sëñ bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim rasool seex bamba yaay suñ confidence bamba murito ku woote gis présence ummanti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence. bamba say xasidaay suñ opulence. sëñ bamba màggal la wootee du ambiance. borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow woote conférence sëñ bamba toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caas ak enfance bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ mënu ko science yaa yéeme yow xaadimu rasool jërëjëf gannaaw bu ñu santee yàlla di nuyu sëñ Muntaxa di ko ñaanal sunu borom jàggal ko suñu kanam la ànd ko wér ak suñu alaaji sama sëriñ mu nga xam ne moom moo nekk Jurbel dañu ko wétali ak suñu mbokk sang yëpp. di balaay maa door sama kàddu di ñaanal yàlla ñi nga xam ne daaw fekk woon nañ ko tereen ñu jiit mën naa cee lim Oustaz Mor Thiam mi nga xam ni yàgg na fi ànd ak ñun di ko liggéey boobu ba tey yàlla def tey daaw mu fekkoon ko euh, yoroon lu bari ci presse bi tey jii fekkoo ko di ko ñaana yàlla sunu borom xare ko na ñoom ak ñu fa jiitu yëpp ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon daaw. li ma yëg ren lu am solo la ndax tey ren lu ñu gis ci mbooloo foog naa gis mës ñu koo gis te muy quatorzième édition loolu mooy junj ni li ñu sëñ bi waxoon mooy ni bis bu bu teroo moo ci bis màggal gi nañ ko sant la borom. ndokk ñun waa njaaram bañ ko xamee ndax yoonu murit njaaram kenn mënu ko ci génn te li fi xew ci yoonu murit fii dafa am solo kon bu loolu amee mi premier bis bi ñu commencé ko ba ñëpp duñ ci roy loolee nañ ko sant waa njaaram sant ko Cheikh waaye sant ko ñu ko bokkul ñëpp mais sant ko population sant ko sant ko nag taalibe yëpp ndax 5 heures bi ñëpp a ngi jox ñëpp a ngi ñaq ñëpp a ngi sant ñëpp a ngi sant sëñ bi di sant yàlla sunu borom ba ñu egg si fii kon su ma dee maire Diourbel maire Diourbel yombul mun ngaa nekk ne maire beneen dëkk maire mais maire Ndiarème mooy maire région de Diourbel chef de région chef lieu région Diourbel muy muy muy muy région mouridisme kon maire moom boo ko doonee da ngaa war a santaat yàlla bu baax sant population bi sant ñëpp xam ni loolu dafa am solo kon bu loolu amee te muy dëkk bu mel ni dañuy takk sunu xàpp gi jël écharpe bi ànd ak doomu aadama yi di ko dox boobu ba tey leen xamal ni dëkk bi amuñu lul bis bi di ci kontaan nag ndax ñëpp ñu ngi ci ànd boobu ba tey di ko dox di ci wax ba ñuy egsee fii tey ñaq yu ñaqoon yëpp si dañoo egsee sanu boroom taw ca ñu kaw dina ñaq bi yëpp loolu lan lay juñ mooy li ñu jot a liggéey sunu boroom rafet na ko sëñ bi ci boppam fa mu newoon lam ñu sasoon la mu bëggoon def nañ ko tey woon nañu mbégteem tey bu ñuy egsi. taalibe mu am solo ndax man daaw dama ne woon fii tey mooy sama dernier ma takk xàpp gi bu déwee ne xaw ma kuy falu maire waaye gëm naa ne man taalibe laa te bu déwee na dinaa ñëwaat yàlla def nag sunu borom def lu ko neex ma nekkaat maire kon maa ngi takkaat xàpp gi su ko yàlla may may ma bakkan fii ba juróomi at dinaa ko ànd ak taalibe yi nekk lañ ko nekkoon nekk ci kanam ànd kook ñoom xam ne fierté la tey jii nga nekk taalibe lan moo koy junj te man moo tax am na ku ma laaj léegi lan moo la boole sëñ Alaaji mais sëñ Alaaji ma koy sant ndax gis ngeen barki démb léegi laa ko fi nettali ba sëñ xaa ñëwee fi def fi ay fan daf ma oolu en tant que maire mu ne ma sëñ bi ci boppam lépp luy xéewal na nga ko ko yóbbul waaye na ko yóbbu ci taalibe ba ma ñëwee ba ci penc mi dama xool li ma sëñ bi wax ma dindi sama mbub ma ma soloon yeew sama ndigg jël teeñ teeñu ko yenn bool bi taxaw ci bunt bi alkaati bi xàmmewu ma téye na ma 30 minutes ni ñu ne ma meer nañu ko man a déedéet naa ko yoon ndax sëñ Mountakha xaalaaj te ndigal taalibe ndigal ligal lañ ma jox mais ba ma dugee alkaati bi day na ko mun a maire mun a maire tani fi nga téye ko ci bunt bi mun a mën dàq ne ñu ne ko ki taalibe la mais ba ma yeggee sëñ bi ba mu kontaane ba pontaan nii la ma tàppe waaye lam ma wax mu ko wax kenn ndax xolam moo sedd ndax maire ak ak ci zahir ak li ma yàlla defal man nangu lépp jël ko taalibe ñëw ci kanamam loolu xolam moo sedd mu ne ma na nga demaat ba ci sëñ Moussa naawel nga yóbbul ko bool ma yéen waat ko fii santaat bu baax dem ba ci sëñ Moussa jox sëñ Abibu ni sëñ Alaaji de moo ko sant monsieur le maire sëñ Moussa ni dënn ni bu kenn waxat waaye monsieur le maire yow li nga jëlee sa daraja ji nga am ci àdduna di député di maire jiite dëkk bépp nga sol nga wàcc sa daraja nekkub taalibe ñu xapp ci suuf neel sëñ Alaaji la mu doon liggéey ceew yemee na ko fa waaye man ci wàllu boppam maa lay yëkkati sama bopp ba ci kaw loolu moo lay wan ni taalibe ci taalibe rek laa amee loolu te amu ma ko ci leneen kon xam ni lépp lu am ci àdduna taalibe rek moo ko gën lii ñu def def tànku neen di dox booba tey ku nangul ku nekkul taalibe doo ko def kon di soññawaat nit ñi di soññaat sama bopp dëkk bii ay taalibe moo fi nekk ne leen nekk taalibe te doxal doxal taalibe te lii ñu am ci Jurbel ñu di ko ñoŋal folk bi ñoo ko moom lii ñoo ko moom di sant journaliste yi di sant mbokk taalibe yi di sant waa njaaram yëpp ba bis tey li fi am tey ci mbooloo kenn mus koo gis presse bi fi ñëw tey maa ngi doo gis presse bu toll ne ba pare ñuy taw tawte ànd ak ñun pour kilo ko pour mën a jaay ko ci àdduna bi loolu moo am solo tax gëm naa ne bis dina ñëw njaareem dina nekk lieu ba nga xam ni tey nekk site touristique nit ñi di ñu fekk si li ne ci kër gi newul fen jumaa ji sañ Touba tegal boppam taxawal ko boppam jullee fi amul fenn armeelam yi amul fenn lu ñu am ci boppam dañ ko war a xam ñoŋal ko kon tey ni nit ñi demee Fès ni ñu demee yombe noonu lañu war a ñëw njaareem di sant ñëpp di xamataat ni tamit ñun taaliba rek la ñu bëgg a doon te taaliba la ñu doon te moom la ñu doon ba faw vraiment di soññ nit tamit Euh, fii ba la màggal gi nañ santaat nañ ko sant la yàlla sunu borom def safari ni ko bëggee teg ko ci taalibe teg ko ci discipline teg ko ci yoon jërëjëf. waa bës bi bés bi sant Serigne Touba la euh, Serigne Touba dafa santaane ñu sant la ko borom bi subhaanahu wa taala le 18 mais bés bi li li yil ji mooy sant Serigne Touba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne balaa ngaa sant yàlla nga sant mbindeef. ki la defal njekk nga sant ko ki la defal njekk boo yonent bi wax na ne na ko neexal boo amul loo ko neexale nga nga ñaanal ko lii nag taxawaayu sant Sëriñ Tuubaa la yàlla dafa wax ne ku ko sant mu mu muy dolli la kon loolu mooy yi lay bés bi bës bi nag fii nga xam ne fii lañ ko defee muy fii ñu taxaw nii fii mooy pàkkub Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul fii kër gi la taxawal fii am fi fukki atak juróom moo ko moo ko taxawal boppam jumaa ji nekk sunu ginnaaw sëriñ Touba moo ko moo ko taxawu ba liggéey noppi. Daara Kaamil bi nga xam ne moo nekk si wet gi it fii la fi nga fi la doon jële jukki di jàng fii dafay dafa doon loo xam ne ni Jurbel dafa doon loo xam ne dafa am ay ay ay xusuusiyaat ay jagle yoo xam ne ni ci yoonu murit feneen amu ko. fii nag fii la sëriñ Touba digle woon màggalu Touba fii ci pàkk bi fii ñu taxaw fi la digle woon ñu sant ko yàlla ci bësam boobu nga xam ne nii ci la nattu yëpp teg ko ci la xéewale yëpp teg euh, ñëw ci la ci la digale booleem taalibe yi ñu taxawu bës bi nee na bës bii bës boobu képp koo xam ne sant la yàlla bu ëllëgee yowmal xiyaam la nga xam ne moom la jëlee ci tukki ga du la ump ñun nag dañu ñoo dénk liggéey boo xam ne liggéey bu mag la ci ci ci ci ci comité bi muy lépp loo xam ne euh, moo moo moo aju ci presse moo moo aju ci mën naa mbind la moo am film la moo xam dafa ànd ak mbind ak film ah wala wala lépp loo xam ne nii rek mu ngi dem ci mbooleem euh, jumtuwaay xarale xarale yi ñun ñoo cay taxaw wane bës bi taaral bés bi euh, ba ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee noonu lañ ko noonu lañ ko bëggee am ñu amee ko noonu yàlla dogal na nag liñ bëggoon yëpp yàlla defal nañu ko ci bés bi defal nañu lépp liñ bëggoon defal def nañ ko nin ko war a nin ko war a defee xëy nañ jàng alxuraan ak i xasida boo waxtu wi jot ñu jóg def mars bi mars bi it biñ ko defee bi ñu yegsee ci pénc mi ci la sun borom tuuri woon kon loolu day wone loolu ijaaba la loolu day wane ni ah, nangul nañ ñu sun bës bii kon yàlla na yàlla def tawfeex ci ñëpp ñun ñëpp sun borom defal ñu ci tawfeex defal ñu ci ngërëmu li nga xam ne nii moom la ñuy sàkkul lépp muy euh, ngërëmu seen Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul euh, bin bin tàmbalee safar bi ba léegi euh, def na def na quatorze quatorze édition fukk ak ñeent loolu nag lu yàgg la lool lu yàgg la lool lu lu bari la fii nag la ñuy nit ñi continuer di sant Serigne Touba ci bés boobu muy safar yi nga xam ne nii moom la ñuy organiser ci mbooleem pàkk yi safar itam lii premier safar itam ku ko def fii nga ko gisee ñun ñoo ko njëkk a taxawal bu àdduna bi yëpp a nga koy taxawal Touba a nga koy taxawal Dakar a nga koy taxawal bitim réew yëpp a nga koy taxawal lii nag ngi taxaw di wax waaye na ñu nan xam ni àdduna yëpp a ngi ñuy seetaan àdduna yëpp a ñuy seetaan kon loolu ñu ngi leen jaajëfal yéen tam yi nga xam ne yéen a koy yeggale fi mu war a yegg yëpp yal na leen yàlla defal tawfeex Oustaz Mor Thiam moom laa wutu ci liggéey bi moom laa wutu ci liggéey bi muy koo xam ne nii liggéey na ci liggéey bu bu mat bu mat sëkk def na ci li nga ci war a def lépp ba suñ boroom nangul ko liggéeyam mu wuyu ji kon ñun ñoo fi des di ko liggéey di di continuer liggéey bi li ñu fi li ñu suñu borom jëlee li ko fi suñu borom jëlee du yaafu sam li ñu fi suñu boroom bàyyee du sunu njàmbaar waaye ab liggéey la ku matal matal nga. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk yi nga xam te yéen a ànd ak ñun ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ma sow coono waaye bis bi da bis boo xamante ni lii ci am mënu cee ñàkk am. ndax ku xool sëriñ Touba juróom-ñaari at yi mu def ci tukki bi am na jamono joo xam ne ci taatu garab la daan toog muy taw di naaj ci kawam kon lii am sant dañ ci sant yàlla bu baax sëñ Abdul Hakim mi nga xam ni moom la fi sëriñ bi yabalit moom sant na mbooloo bu baax baax ñaanal leen eh, ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi ba mu ñi ngi sant waa comité d'organisation Magal Touba ci njiital sëñ Bassirou Mbacké mu sëñ Abdou Khadre ñi ngi sant sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma ak mboolem waa comité d'organisation bu màggalu Touba bi lii bis bii nag ku ne xamoon na li ko waral mooy sant sëñ Touba gërëm sëñ Touba teeru la ko li nga xam ne mooy màggalu Touba gi te def nañ ko ci anam bi mu gën a rafete jàng nañ fii limu kaamil yu takku yoo xam te war naa toll ci ñeent fukki kaamil ak nangam xasida jàng nañ fi xasida guñ tànnoon ren muy xasida mooy bu jàng nañ ci mille trois cent treize mooy bu ak yeneen xasida yi nga xam ne ànd na ci waaye boobu lañ jëloon ren ngir di ko um, waajalee bisu bi nga xam ne mooy bisu ku tedd ki mu di màggalu Touba. kon ñu ngi sant bu baax a baax waa presse bi jógee Touba ak waa presse bi nekk Njaareem ak ñu jóge dakaar sant nañ ñëpp buñ limee dañuy juum waaye nañ xam ni bég nañ euh, te sëñ Tuubaa mi nga xam ni moo taxoon ñuy jëf euh, won nañu ñu jëf ji nangu na ko kon ñu àndandoo waajal màggal Tuubaa rek te xam ne bis bii màggal gi moo ko waraloon. noo ngi sant yàlla si jotaay bi di sant sëñ Tuubaa euh, si tawfiix ji mu ñu defal ndax sëñ Sia xam nga 2017 seen été ngi teew la woon. 2018 yaay choisir 2019 lépp teranga la 2020 Amadou solution 2021 Amadou Mbacké yaa daan waaye 2022 bii nag Amadou Mbacké lañ sant yi kon ñu ngi sant Sëñ Tuubaa ci tawféex bi muy tawféexal du am xel du ak njàmbaar du lenn Sëñ baax rek kon ñu dikk ci santir googu ànd ci ak bokki taalibe ko màggalu Tuubaa gi lépp lu dagan rek boo demee Tuubaa da nga ko fekk inshallah rabbi yaa nuy moom maam Bamba yaa nuy bu nuy dund ak bu nuy dee lépp yaa nuy moom maam Bamba yaa nuy moom bismillah si barkeb borom nindi barkeb Sidi Birahim yal na way yi mat man Bamba laa sentir daam jogatina kuy daam daam seen safar may bandab annonce bi leer bés baa ngi ñëw man Bamba laa bés bi day ndigal te ndigal dees koy jëfe moo wax ne nan ko sant le boromam ci lim ko may nun Bamba lan yaa bari njëriñ maam Bamba bari njariñ saa nafin bilaa dararin kii mooy njariñ nun Bamba lan sentir Ahmadou Mbakke baraag la dëkke woon mosula dëkk siñ taax sakkatam yooyee waral gaa ñaa ngi éri plis nun Bamba lan sentir Ahmadou Mbakke ay karbat la daa solit karbatam yoo waral gaa ñi kii su nun Bamba lan sentir yaa bari njariñ maam Bamba yaa bari njariñ saa nafin bilaa dararin kii mooy njariñ nun Bamba lan yére yu weex la daa sol te du am poos ñàkk poosam gaa waral poos yeeg poset yi nun bambalan sentir cey xasida yi xasida mooy mbindum loxoom ku ko jàng jag jag di jagale cey xasida yi nun bambalan sentir cey bernde yi bernde bernde nag ci la alxuraan ne kuloo wasra boo màggala ngoog yow gan gi loo sentir belli xar kanam tey ree ci cant gi la sol lu rafet laal sa laj koloñ gaa ñiy seen den naan daloo sentir nga naa leen may ga mbaa sax nga naa leen débi mbaa mis wala soo sax yaay sentir yow gan gi loo sentir salaat suñu orne njoñ ay ganaar teg ca kaw def ci këccëb def ci mayonnaise def ci pomme jox gan ñi ñuy sentir am nañu macaroni ak couscous ak petit waaye ak vermicelle baak spaghetti ba yow gan gilo loo sentir ceebub jënit am na ceebub seer ceebu keccax kaani sëlëx mbaa kaani xeeñ yow gan gi loo soosu kaani it am na ak koromasi ak yaa ma tooñ am na caw saxiir ñooy maye appétit yow gan gi loo sentir mbaxalum law bi am na mbaxalum naar ceebu koppin ceebu naat mbaxalum saalumit yow gan gi loo sentir laaxub araw am na laaxub sangal laaxub saab na tëri wala sow yaay sentir yow gan gi loo sentir cerey mboq ja mbaa sax cerey suuna ja cerey la yak cerey baa seeg ja yow noo ko sentir rek Cheikh Mountakha na fi yàgg nee leen amin mat na idole mat na référence may nañu courage Cheikh Mountakha xalifa bi yàlla yàlla def ci jàmm barakatu Seexal Xadiim